tey jii nag euh, ñu tasaanteeg le directeur cabinet Madické 2019 fas yéene ñoom tamit ban programme lañ am ci wàllum ak yeneen xale monsieur Mamadou Ndiaye ñu ngi ñu baax sëñ bi. Euh, ñu ngi euh, nga wax ñoom ban wàll waaye ma sant leen rek ci. Euh, opportunité bi ngeen ñu jox ñi ba ñu mën a wax ak xale yi ndax dégg ngeen Madické Niang li muy wax ci euh, li nga xam ne moom mooy devise am euh, donc day na la jeunesse et les femmes comme fer de lance donc yéen bu ngeen ñu mayetee opportunité ñu wax ci ndaw ñi ak xale yi loolu ñun ñoo leen di sant fi mu nii ci loolu opportunité boobu ngeen ñu may. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi tudd Moussa Diouf. élève la. Hmm. bokk aussi ci ñi di militer bu àq ak yelleef Allez, euh, détail ak ne seen devise ça concerne euh, la jeunesse et les femmes suñu première question bi leen laaj mooy xale bi bonne place la am seen programme euh, concernant élection présidentielle 2019 waaw xale moo nekk ci këru suñu programme ndax xale moom mooy avenir u nation pour être pour gën a leeral ñun dañoo tànn def projet de société

ñu jàpp ne Sénégal li li ñu war a njëkk a fondement bi moom mooy fexe ba éducation bi mën a nekk loo xam ne jur ay citoyens yoo xam ne seen jikko la ñu njëkk liggéey parce que nit ki balaa ngay sol ci moom xam-xam da ngay njëkk sol ci moom jikko yu rafet ba pare kon li nga xam ne lii moom la ñu njëkkee fexe ba fii nga xam ne moom la ñuy defaree diko xalé manam loolu ñuy un jardin d'enfants dañ dañ ko def euh, ci réew mi yenn ay foyekaay ñun nañ du société mu nekk naka la ko naka la toftalo ba mu jàng fa naw kilifa. mais waaw li ma wax dañ technique day niru fo waye fond bi nak mo am solo fond bi fond bi ne ci bir na nek won xale bi ne dafa wara am kilifa bu ma naree def lu ñaaw sax suma xel da kilifa bobu bu ko gisé programme yi xam nga lolu ak ak yelef nak xam nga balaa ngay. voilà ci la doon ñëw. da ñu jital xale bi xam nga bu tuba bi nax ci ne. dañu war a jiital xale bi rek bay bayloo ko nu ñuy wax ak ak yelef léegi bay bayloo loo xale bi la rek ba doo ko teg ci yoon ak yelef mooy fexe ba njaboot xale bi nga teg ko ci yoon bi koy jariñ mooy ak bu njëkk bi teg ko ci yoon bi koy jëriñ parce que xale bi njëriñam bu ko xamoon du ko tudd xale. léegi xale boobu nag waaw. beneen Sénégal dafa waaw xam nga euh, yàlla dafa dugal président Madické Niang déjà nekkoon ku jiite affaires étrangères xam lan la dooley convention internationale réew liñ koy njëkk a respecté liñ koy njëkk nawe mooy balaa muy teg signature am ci ab këyit da koy leer ne bu signature dina jëfe la mu signé moo tax réew yi dañuy waajal sax droit international li wax réserve boo xamee ne yow mi boo signé doo ko mën a def da ngay def réserve

ak li société bi gëm ndax code yooyu xam nga lan moo leen di indil problème dañ koy jël ba pare parfois te duñ jël temps waxtaan ak couche sociale yi déterminante. mais code de l'enfant bi c'est-à-dire que ay acteurs yu nekk fii ñoo taxaw xalaat ko wax ci comme la stratégie nationale pour la protection des enfants pour xale bi am loi ak règlement comme par exemple bu ñuy wax code de la famille ñu ko tënkee ci Sénégal loolu mooy code de l'enfant. waaw xam nga li ma loolu laa lay wax ne xam nga code yooyu. yàgg naa xam processus ñu leen di bindé code yoyu li indi sen problème li tax ña nga xam ni daf nañ ko pare dugalaguñ ko assemblée xam nga ne nekkul lu yomb bu doon lu yomb yomb la rek heure bi dugg na assemblée ba adopté nañ ko kon expérience même administration duma may ma naan dina ko def te xooluma ñom la cay ñu lan la lan moko ko bloqué damay njëkk ne dañ ko def def bi mom c'est sûr nan nag lañ koy defee laa bëgg pour bu ëllëgee nit ñi duñu ne ah yéen a waxoon da ngeen koy def rek def leen ko suba wala gannaaw suba waaye danañ ko def waaye defin ba danañ fexe ba senegal mm-hmm. duñ ca loru ci leen voilà maa ngi lay fay sama doom tey

xam nga euh, léeg-léeg structuration appareil gouvernemental bu nit nekkee candidat naan dinaa am ministère bu tudd nangam wala ministère bu tudd nangam politicien mën na ko def pour rek nit ñi ne waaw mais ma dikkee duy doxe noonu boo ko waxee loo xam ne boo gisee alliance yi jafe ci ñun boko waxé lo xamné lér ne leer na ko ne jëf ba du mëna démé non dalay teel wax né loolu duma ko mëna défé non bu ma nee dina am ministère bo xamné enfant rek xam nga mën wax né Sénégal dama bëgg ministère yi néew nga bëgg enfant am éducation am bi am bi am nga diko morcelé ba retrouver gouvernement wu 50 personnes yu inefficace mais bu amul. il y a pas ministère yo xamné ne dañu nekk ministère sectoriel le ministère protection enfant gëm nañ ne bu amee dina gën a yombal ak yelleef xale yi gars yi gën ko jox cër gën ko respecté. loolu yëpp euh, xam nga du du loo xam ne lii euh, mën na am un choix définitif fi ñuy waxee nii mais dama ne lu mën a nekk la lu mën a nekk la lu dépendra lan ngay def ci biir ministère de l'enfant xam nga bo né ministère de l'enfant enfant protection droit de l'enfant bu la neexee dana am ay loo xam ne ñu ngi ko doon tuddee ci beneen ministère te xale bi la soxal nga boole ko ba nga xam ne dana wàññi nombre ministères yi ci wet googu bu boobaa lu lépp loo xam ne maanaam étude lay laaj boo xam ne booy étudier sa appareil gouvernemental ngay seet comme enfant bëgg nga ko jox cër boobu te loolu la ñëpp ñun loolu lañ bëgg xale dañ ko bëgg a jox cër boo xam ne kenn dootu ko fekk ci mbedd mi par rapport ak li mu wax bëggatul ñu koy fekk ci mbedd mi

demuñ ci mbedd mi ji yelwaan ci ban droit la ñu wax ne ñiy jàng beneen euh, culture même si c'est culture arabophone ñooñu dañ leen di beddi ba kenn du leen dimbale loolu est-ce que démocratie la ñun dañoo bëgg donc ni ñuy dimbalee école yi jàng nasaraan ñu ndimbal lu toll noonu dugg ci ñiy jàng arab ba kenn du ci dem ci mbedd mi xam nga ñooñu wàjji nga leen ressources lañ fay def nu ñuy def ni ñuy dimbalee école

ñàkk yego liñu dindi ci système éducatif Nous sommes yëgoo dëj fi ne nous ba nas ñun ñëpp ñu nasandoro ko ba élève du du gis du du gis nañ ko kat du gis né nañ ko inspecteur du gis ne nañ ko nous ba ñooñu ñëpp seen ci système bi am grève jeex. jërëjëfëti